yow war nañ laa audité de li nga yónni yow yaa ko moom. gauche droite gauche. Bye. Fais ton travail. Riga riga riga riga riga riga riga galañi sambore. Ça va? Nani? Eh, c'est toi ça là. Toi tu viens ici, je t'offre un plat gratuit et puis tu te permets de m'escroquer. Mais 10 000 francs, dépêche-toi. Waaye ji ci xanaa da nga may bàyyi ma daaneel waay wi nag ba pare nag yow it. Eh. ici c'est pas Sorano. oui ma ana Guèye Teranga. Guèye yegg seegu fi je mon argent dépêche-toi. waaye Guèye yow Guèye lan mooy ñaari junni yow it ñaari junni tax nga may songu nii xaaral Guèye Teranga ñëw ma réglé ko. Guèye bu ñëwul nag. ma def na ma daan def. coono eh. tere. <laughs> tasaare borom gànnaar gu jigéen ak eh, eh jël nga tee de. <laughs> nu def ba du ma jël ne. <laughs> day as sag de. ay lay xëy la la. loo yéex yéex yéex gaaw naa lu ko raw ça va. chérie euh, yéen ma ma servir leen ah voilà ah, deux plats ah, rapidement. ma <coughs> gaaw koor gi daa métti de. defal ndànk da nga fee fekk ay nit. kii kan la salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. ça va bien merci. ça va. lan nga fi amoon compara kay. tey sauce yàpp moo fi am frite ak crudité. da waral ma ci paraat waay. maa ngi fee toog. d'accord dama di nag. salaamaaleykum. waay waay bi na nga eh, yow lan war a ni ngay def lan la. na ngay tey. sëñ bi. eh eh. damay xoolal dàqoon nu tuuflee ah ñu ngi jël lu peer. sëñ bi mu xat. sëñ bi. waaw. yow mbër nga may saf de xanaa lutteur nga. waaw mbër hmm, yow foo toj. tey laa wax. ah laaj nga ma lu am solo de te yàkkamti woon naa loolu nga laaj ma ko gis nga luy ko xubooy coñaay mbaab loolu ngël mbarasaan njib njibam njéet ba ci gaawaan yow ay eh, arrondissement nga toj arrondissement nga toj. capital bi la ñuy laaj. loolu nga foog rek. ñun fii la ñu wax Ndakaaru Njaay. waaw looloo tax nag ma bugg ñëw Ndakaaru gi wan leen ni xoolal kenn ki la muy man mii waaw te kenn nag moo ma gën a tax a kan ngay wax ban ngay wax xanaa mbër bi amul tur wala na nga koo ragal. kenn la ki ngay wax. xanaa boo ñaaw mi ngeen di wax. booy ñaa ngay tudd. waaw ah, booy ñaa day dara ci man egg fi ma fii. kupp kale gaa ngoog kupp kale yooyu nekk dara yi def nii kupp kale gaa ngi noonu daj dëpp gi. xool tey laay maa la dàq boobu moo ma ñandoo te ma ñandu la man. waaye loolu ci biir doo bokk. waaw dama lay wax rek. ci nit doo bokk ci nit doo bokk. mbër yi nag dañoo civilisé de. en plus booy ñaar xoolal chaque jour que jëfee mu ngi sama buntu kër dem na ba suñu waay koy ñëpp a xàmmee oto. man de ba mu duggee géejewaay sama mbër yëpp dugg na fa benn yoon daan sama mbër yi deuxième fois man daal booy ñaar defuma ak moom nenn xam lu ma dig nag fu mu nekk ni ma plus nee na mariage. bu ko sëyal. muy yéen wala sax pour sëy ak moom. bañal eh, demoiselle. lan laa dégg la wax nga ne kan. booy ñaam. booy ñaameen. waaw mooy ñaamu am classe bi nga xam ne il se mélange pas microbe il est toujours accompagné de bonnes filles xam nga yu bëri sutura yi nga xam ne du wax daal. yow xoolal boo amee loo ci lam-lame daal marché chérie danga may jox sa numéro. suba ndogu la ma dikk nee na suba sama kër lay ndogoo chaque jour nee naa la mu ngi sama kër. sa diggante ak yàlla boo amee loo ci lam-lamee xoolal ci naka ma donné ton numéro suba bu ñëwee ma woo la. kooku moom c'est mon lutteur préféré. loolu fii lay fanaan di fa yeewoo. defal loolu maa bis bu subaa. balaa nga fay génn ma jox la sama numéro. jeex na am benn problème. na nga ma teg ak moom bët nag. d'accord am benn problème. merci sister merci. bi da nga fi fekk ay nit de. ful kan laa wax. waa champion. waaw yow noo fay ndagam. waaw. Ah, yow koo mës a bëreel fii ci arène bi. looy loo gis nga xoolat ay Bombardier ma ñuy sow. Hmm. bëri nañu mbapat ma daan ko. Yékini mi ñuy wax nii. boo weddee nga dem Grand Dakar nga laaj ko da mbapat bëri nañ mbapat ma daan ko. Hmm. kenn du laa xam ni mu bëri nañ ci ñun ñaar. Hmm. te kooku jamaaram ñépp wax nañ ko. mooy boo ña. buur géwél la loolu moom xam naa ko ci moom. leen moo arrêté sunu combat mooy ko courant bay coupé. bi taxoon fi xam surprise def asalaamaaleykum asalaamaaleykum Martin Kuli Diop Jogoma yees. Eh, ah, amee laa ilaaha illallaah. Eh, doomi de Thiès l'homme de Kër Maam Alaaji. ku baax na ngeen def. ça va bien. les jolies demoiselles na def. faites comme chez vous. Eh, ah jeune de bonne famille je te reconnais toi. eh attrape tes cinq Guigui Guigui. c'est ce que tu m'as dit la dernière fois ici ma voiture elle est mais Guigui elle n'a rien compris. mais Diop Fall xanaa dégaloo kii Guigui am na lu ma waxoon ak yow sànq ci suuf. yow sa affaire nga ma wax man ak moom am na lu ñu séq. ok donc reste tranquille. loolu c'est le minimum man quoi parce que man yow wax naa la fii je gère les grands projets du chef de l'État. ça tu dama am benn mbër bi préparé combat te il est très problème. kii xamul yëgul li ma neex mooy yëgul ni surprise da nga koy defaral moom a woo ni ma sa mbër la yow. kooku kan la noonu. maa ngi ñëw. eh ma ñëw yow. à tout à l'heure Diop yow yaay xam ku ne. yow noppi rek. waaw ah voici l'homme a tracé Garga Mbossé tout récent. ah. booy boo lay la ilaha illallah. jàmbaar l'homme des grands événements loolu nekk yow. l'homme de Pikine est là. dama jigéen taxawal li yow. taxawal li dama dama bëggoon damay vivre ma. diina ko duma. aywa. diina ko duma. tey. diina ko duma. waaw. tas ba. mais. diina ko duma. waaw loolu neex na naka moom. diina ko duma. diina ne boo nee defee. jàmbar ganuk suba. waaw. mooy dalal ganuk ngoon. waaw loolu dëgg la. ah naka ma ci loolu nekkee naka jàmm ci. yàlla def la waaw nga de. na fii mu ñëwee baax. cum gii. Euh, booy ña da xam kii. non kii xaw ma ko si ma xaw ma ko muy hmm. baax da xam kii. kii mooy kon kii fan la toj. booy ña nga ngi. ka nga doon bëreel ba courant ba coupé. ñu ne doon koy defaat mu ngi nii. kon ci wax nga de. booy ñang mi nga ni mi soxla ci ndakaaru njaay gi nii. ci kàlla ah, jaawale de man waxuma la booy ñaa de bàyyi njaay laa la wax bàyyi njaay moo si sax de ñooy. eh maa ko maa ko fekkee. jarul ay tuñ yëkkatil tuñ yi. ci gën a mën a fen. yow kii mooy waaw yow kii mooy waaw kii mooy buur géwél pire kii sotti maa tur kii buur géwél pire kii fan la kii kii la waaye tamit bàyyi ko mu kàmp eh, ah. boqat la kii ba ci lii toog ndaw sii waaw nee na otom bis bu jot yaa ngi koy baare sa yaa ngi koy gaare ci buntu këram kon moo ko fi wax nee na doo fa jóg danga koy doxaan lii. jarul gi ay bopp xanaa da moo ko ah eh, dañ lay sa ah. bu njàmpe booy ñaa ngi ni waxal. non kii xaw ma ko xaw ma ko. waaw mais yéen tamit mënu leen bàyyi di usurper les di identité personne yi. non eh, loolu waaye yéen tamit. boobu demee noonu. waaw ah, oui mais ñun sa xama comme géej euh, gi boo gisee ñun yow fi Guèye sama waay la moom sama doomu nday la. Ah, oui ma jógee entraînement léegi mu ne ma mbër lu ma gën a gaaw gaaw gaawal ñu dem seeti sa benn fans boo xam ne mi ngi ubbi boo xamante ni macha allah loolu moo waral ñu teew fii comme ni ñu ko waxee xam na ñii nag di ñu wax ci ñoom tamit xam nga. da oh, eh, ngeen a da ngeen a xiif payee nañ leen. xam nga Sénégal jigéen ñi dañoo xiif yow Samb yow moom yow foo toj yow. ah man man man. Hmm. ay man tojaguma de. ah mais comme yow champion nga te instant bii gis ma la gisee nii sa yaram tàng na. waaw fa laa jóge fa nga ma jëlee waaw ñëwal ni ñu may ko. saa waay. ñëwal nañ ci digg bi. ku am dara mooy maye de waaye fii dara nekku fi de. non il faut ñu maye ko nag de. déet parce que foofu dara nekk fi baay xoolal. non da ngay ñëw amuñu la xoolal nekk leen ci jàmm baay. mais yow bul dem de Diop jàppal. Eh, am leen jàmm déedéet baay nekk leen ci jàmm quoi. Eh, booy booy na nga ñëw sama kër nag de tapis rouge laa lay lalal. sama sër yëpp laay génnee teg. nga ciy dox rek mais del xool tamit ñu baax ñu fréquenté fii xam nga booy da ngay di déconné quoi. dëgg la dëgg la dëgg la jàmm waa gay de. dafa lay gunge waa jaana Guigui a booy demal waayam. yéen daal nii bu ngeen dégg rek di wax yow nekkate li nga fi nekk di ratata suba ba tey xamoo sax kuy booy ñaar. sama xol bi sedd na torop contre ndaw si fi mu ne bi mu nekk tey mosuma gis ku sonn ni ci gargot bi. xam ah nga daanaka tey nar woon taal. Hmm. man xam naa si dara bu baax. 5000 bi nga yoroon noonu. waaw naa ko ni am taalal. ah 5000 ma jox moom nga. Oh. Ah, te moom sama la. bu gars yi di jàppale man maa si war a njëkk. ok ah, xaaral xaaral. non mbër. looy def ah, nii non xaaral mbër. léegi cinquante mille yi nii xam nga. léegi jox ko rek bu ko defee nga ne ko ñaa moo ci jàpp. ci gargot bi xam mooy loolu quoi. damal ko une sapette bu ko ñii. bu ñu ko yóbbu ñaar rakk yi ndar. noonu la demee ñoo far. ah oui. yow dal jàmm rafet na. ah waaw mais amul problème. waaw mais rafet ma waaw. mais Bakka yow a wàcce de. non man amul problème. a wàcce. non xoolal non yow ñoo far sama nit nga xam ne saa bu ñu àndee da xam ne amul def. waaw kon instant yii loolu lan. non baa ngi dugg. xam nga Pape Diouf lu ñuy xaar ak bébé baas. nan fa dem léegi xam nañ def dañuy dugg ma rek père. non non non man moom du ma dugg. yow sax garaawul amul problème non dugg de. waa mais yërëm surtout yërëm nu ma am yow tamit. nan dem waaw dem rek ma jël wàcce la yow ñëw fa. baax na waaw ah, xaaral ma ñëw. ah xaaral ma ñëw rek. léegi kon fekk ma kër Pape Diouf. fekk ma fa. sama jigéen. waaw waaw dama doon génn léegi. Diop Fall ñuul dam ma ma am lu ma ko jox pour mu jox la mais instant bi nii yoolu ma liquidité chèque laa yor léegi cinquante mille li ma ko jox moom nga may delloo ko defee ma bindal la chèque cent mille bu ma jàppee fii quoi incha allah loo ko jox pour mu jox ma cinquante mille pour mu jox nga jàpp ci liggéey na ma dix mille francs nee na day dem gunge ngay ñëw fay ma dërëm jox ma ko Sénégal nag lii la naan siw du jàmmi borom